Shocking FM. Catching eye. Bonjour à tous, c'est l'actualité de ce jour. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 3 mai Journée mondiale de liberté de la presse pour, sensibiliser, euh, pour sensibiliser l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement leurs obligations et respecter et faire respecter le droit de liberté d'expression. Une journée qui se fête depuis 1993. En cette journée, les journalistes du Sénégal demandent l'application du nouveau code de la presse. Hier, les étudiants de l'ICAD sont sortis dans la rue pour leur le ras bol selon Jean-Pierre Mendy, président de la commission sociale de l'amicale de la faculté de droit. Leur grève est due au non-respect des engagements liés à la question des bourses que l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Marie avait pris. À l'issue de cette confrontation, plusieurs blessés ont été notés aux côtés des étudiants. Le président sortant du comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, Manker Ndiaye, a passé le relais à Eva Marie Kolsek, à la tête de cette institution ce jeudi. Manker Ndiaye en a profité pour insister sur l'importance d'accroître les moyens d'intervention du Comité national de l'ITIE afin de garantir davantage la pérennité du euh, processus international. Le cyclone Fanny touche l'Inde, plus d'un million d'habitants évacués. Les autorités indiennes poursuivent l'évacuation de plus d'un million de personnes des régions de l'Est du pays. Elles pourraient être euh, sur la trajectoire de la tempête Fanny, priori la plus forte de, dans la région en plus de 20 ans. Toujours en information, les quotidiens La célibération ont fait savoir sur la base d'un audit indépendant qu'ils ont parcouru la mafia autour du ramassage des ordures de Dakar. 261 employés fictifs qui recevaient comme salaire 60 millions de francs par mois, 13 milliards débloqués dans euh, l'opacité totale et une présomption de surfacturation portant sur 4 milliards qui éclaboussent les concessionnaires sont notés. L'audit en question a ainsi fait savoir que l'ancien coordinateur de l'UCG Ibrahim Diagne, recruté illégalement autour de bras des personnes sans qualification. Et pour euh, finir, parlons musique. Hamza et Aya Nakamura règnent sur une soirée orientale. Leur titre Dal X Love Therapy et le nouveau bébé de Hamza et Aya Nakamura, une chanson qui n'a pas de sur leur fan et un clip envoûtant. C'est finir dans le ciel sur le baromètre. Allez, je mes épaules, mes voyages, mais reste dans les barrages, me jette, c'est la noyade, mais j'aime bien. Tout de suite la version Wolof. yéen de King FM 99.4 mbokk yi dal leen jàmm ci seen tënkum xibaar dañu koy daal di tàmbali ak assemblée générale bu nations unies nga xamante ne dañoo daal di euh, jàpp ni ki euh, tey ji journée mondiale de liberté euh, de la presse rek ngir daal di sensibiliser li nga xamante ne moom moo di liberté de la presse waaye itamit fàttali gouvernement bi ci seen obligation jëmale ko nag ci ñu daal di respecté waaye itamit jéem respecté loo nit ñi li nga xamante ne moom moo di droit de liberté d'expression mu nekk benn journée goo xamante ne noonu koy màggal ca tupp 1993 ba tey ji ci bis bi la rek ñii di journaliste wu Sénégal gi nag ñu ngi daal di ñaan ñu daal di amal nag application wu nouveau code de la presse buñ ko jógee ni ki démb étudiant ngu UCAD yi dañoo wàccoon ca taliba rek ngir wane seen mer bu nu sukkandikoo ci Jean Pierre Mendy nekk président de la commission sociale amicale de la faculté de droit nak mi ngi xamle ne grève bi li ko waral rek moom moo di dañuy daal di wul respecté li nga xamante ni moom la ñu waxandook ñoom jëmoon nag ci wàllum bourse yi nga xamante ni ancien ministre de l'enseignement supérieur d'ailleurs Mary Teuw Niane nuko. Eh, diggoon na len ko eh, ci lolé rek lo ga doxon ci étudiant yek takoderi amna am na ay nit ci am ay gañu gañu jëm ci étudiant ya ni di eh, président sortant bu comité national bu initiative pour la transparence dans les industries extractives Mankeur Ndiaye nag daal dinay jox mbir yi lenge yi sax la wara wax ki nga mom modi Eva Maricole c'est que ca institution bobu leen ni kii démb Mankeur Ndiaye nag profito rek ci mbir moomule ngir rek delluwaat ci xamle ni dañoo daal di war a gën a moyen d' intervention jëm comité national bu institution boobule ngir rek daal di mën a euh, di euh, processus boobule dañuy desandi ci xibaar yi waxtaani ñi nga xamante ni ñoo di journal L'As ak Libération nga xamante ne tey jii dañuy daal di mm, ay mafia nag dafa daal di am ci wàllum ramassage d'ordures file ci Dakar lu tolloog nag ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn employé yoo xamante ni kenn xamu leen yu ñu ci li ni mel di daa di la lu tolloog juróom benn million franc CFA weer bu jot lu tolloog nag fukk ak ñetti milliards la ñu dal di blo débloqué jëmele ko rek ci wàllu mbir moomu la te ñooñee ñuy wax ne dañu cee liggéey liggéey yu ñu ci loolu nak tax ba lu tolloog ñeenti milliards nak ci li nga xamante ni ñoom ñoo war a liggéey jor jëfandikoo xaalis boobu le mënuñ ci dal di jot ki xamle li ni mel itam delluwaat na di xamle ni kii di ancien coordonnateur bu UCG Ibrahima Diagne nak da doon recruter ay nit yoo xamante ni amuñu qualification ci Euh, liggéey boobule ñu dem rek ca bitim réew daal di dem ca Inde nag ab cyclone fan yi moom moo daal di ñëw euh, yëngal dëkk ba ba tax na lu tolloo ko benn million euh, doomu aadama ya fay yeewoon nag ñu daal di yóbbu ca yeneen dëkk donte sax ñu ngi naan lii di cyclone ba nag mën na ñëwaat ca région de l'Est boobule nga xamante ne foofu la daal di yóbbu doomi adama yi ba tax na rek ci fàttali ñu xam le ne tempête fan yi bile na nañu ko fa gis lu tolloo ko ñax fukkaat a ngi nii mbir mi ni mel amu fa ngir jeexal rek tënkum xibaar yi ñuy waxtaane wàllu musique jëmale ko ci Hamza ak Ayam Nakamura ñoom ñaar fi mu nekk nii dañoo daal di génne woy bu bees bu mu ñuy dippee Del X Love Therapy mu nekk nag euh, woy boo xamante ni fi mu nekk nii daal di nañu ko def clip ba tax na ñoom ñaar seen i fan su kontaan nañu ci bu baax a baax